wax ji moom mos a wax ne wax ji wax ji wax ji moom du dugg suñuy wax. damay déglu ma dégg li may leeralaat jëlaale ko dégg sëñ yow ko jotu nga ji loolu sax ba naan sëñ si yow kay ne salaamaaleykum. njëkk naa génne information ne ngeen toog naa jàkkaarloog yow maa ko waxoon. waaw naa ko weddi seen kanam. waaw waaw léegi loo xam leeral la nag sëñ si si. waaye da ngay wax da ngay wax maa defoon bu njëkk maa toogaat nii naa leeral <laughs> ah. 还没。 bisimilah. jërëjëf sëñ Sow ñoo ñu taxaw na sëñ Fall yàlla ñoom lañ posé si si dàq yooyu yoo xam ne ñu ngi ci daara ji jot fi jaar jàngee ko alxuraan ba tey lépp rek nee na a indi ak leeral yi nga xam ne moo am lu Zara jiggling man lang. Zara jiggling man lang. Nasa mga panay. Bago. Lang na dahil yung gabi. Man kasi mo lang yan. Kamera fakiat adbe. Jangal al-Quran. Babis sin saliw ci bopam. Yab la ci si mot la ne ko dama bëggoon nga jox ma ci samay bëgg ko bi ma ñëwee sëñ bi booba xale gan yi ñëwoon këram ak xale yu xiibul yi ak xale yi nga xam ne dañu ko ci àll ba ñoom la dajale ba mat juróomi téeméer indil ma ko ci këram jii ngeen fekkoon muy daal kër kër sëñ Saliou ma andi ko juróomi téeméer xale yi da leen jàngal mu boole ma ak Cheikh Béthio ne ma bu ñu génn kër gi bu ñu génn kër gi dem fenn xale yi ci biir kër nga dañaa nekk daawul dem fenn loolu nag moom la ñu wéer bu fii may waxal boo ñëwee daara ñetti daara xale bi nga xam ne day jàng wàcc ñibi bëri na fi ngir yàlla xale yi nga xam ne ay sëñ daara lañ day jàng xam-xam bëri nañ fi ngir yàlla xale bi nga xam ne nag comme moom amaa doon na jàng école français doon gune bu tuuti toll ci fukki at ba fukki at ak ñaar waaye xëy na bu ko bàyyam jàngaloo ju di jàng topp mbedd Ndakaar yi wala mbedd Touba yi wala sareet yeeg fas yi nga bëgg nu dugalal ko ci internet foofu moom dana am lu la xale ya fa nekk bëri nañ tey ña fa nekk borom ndombal tànk gu ne doomu ngi ci biir xalifa bu doomu ngi ci biir borom dara ju doomu ngi ci biir daara ji nii lay doxee soo may damaa bëgg sama doom dama naan ñëwal xoolal sa soo ñëwee xool ma wan ñetti xeetu daara yi fi nekk daara joo mën a ji laa bëgg may laa ci bisimilah kon ñun jëluñu kenn ku fi dugg rek yaa fi sa doom la toppaate nee nañ leen ku fi indi sa doom. bu neexee ajuma june ñëwal wi si te ngoon ak boo ñëwoon fi da ngay fekk mbedd mu fees dell oto ki sax ak ay AC ay nit ñi ñëw di wi naa ñu ne daa am dong yu defe naa ne li ngeen wax ne dafa faatu su fekkoon am na doo ñëw fekk ma fii ma toog fii loolu defe naa leneen la it dégg naa ñu ne dong dañu nekk jox waaw juróomi benn mbala nga taal ko bëccëg juróom-benni mban nga taal ko ngoon waaye juróom-benni mban a cox foo ko jëlee ba ba set ñaari daara yu toll nii ku ko tabax mu wóor na ñaari daara yi un milliard war nga caa dem nan ngay tabaxee ñaari daara yu mel nii ba noppi dañ ci dugal ñuy lekk jox loolu xëy na nangu ko te am na ci loo xam ne bu ngeen di laaj dong nga daara ba dawee ca daara jigéen ja dawee ci séem du wax lu baax mukk borom jëmmiñ bi na ci du wax lu baax su ngeen ne laajate bu leen dem ci dong daara bu dawee ca daara bu leen dem ci jigéen ji jigéen ji dawee ci sëñ da ngeen dem ci sëñ daara ba wala ngeen dem ci koñ ña nga xam ne ragal nañ yàlla tey wax dëgg ñu ne dong dong dañu nekk ci jigéen ñi togg am na ñoo xam ne seen doom ñu ngi ci biir daara te dañ leen di fay ñuy togg te seen yi dugal ci daara ji bi ma fiy ñëw sëñ Saliou moo ne képp kuy jàng demal ci sëñ Cissé bu toogee ne kuy jàng demal ci diw maa war a réer ñu bëri te réer bi day gën di yokk rek te ma xamal la ne man ne àdduna bëgguma ci dara ndigal sëñ bi rek laa soxla su ma ci lii ba faatu ji baax naa ci nekk rek ba ba may daje moom gàcce rek laa bëgg lii rek laa bëgg. lastu aqaafu durra xalqan ba dama fawattu am ree illa rabasa lii mooy sax asalaamaaleykum xam nga dong dégg naa blessé na yóbbu nañ ko hôpital waa kër sëñ Bara Dolly yii ñoo fi indi moom mu ko hôpital ci bokkam blessé ba taxul mu garaan waaye na man taxul mu gis ko ndax man fii laa newoon ci biir toog fii bi boo yéegi ci kaw étage bi ba jël buntu ba mag bi dajjee ko fenêtre bi toog ci kaw bala koy lañ leen wax ne dem ne ngeen dugg ci biir daara ji bunt yi dong bëgg dem dem xanaa bu tëjee bunt bi nga fekk fi nit biir daara ji ñoo ñëw fekk ko fi kenn tey ñun ñoo leen ci bunt yi leen dem dem dem demal ngir bañ maanaam ndax commencé nañoo wàcc ci balcon yi dem ne ngeen tijji leen bunt yi ko bëgg dem dem waaye kon bépp boo génnee mën nga jaar ci koñ bi laaj bi loolu amee ndax seen parents yi ñëw na am na ñoo xam ne dellu nañ seen waajur lu ñëpp dellu si waat nañ ci daal. xam nga daal yow mën na ko ñu fay dellu si loolu la ma seqee seen parents ñoo ñëw nañ wala ñëwaguñ ma loolu benn affaire la bi ñu ubbee xaaj bi demul am na ñoo xam ne ñu ngi ci biir daal ñu ñëw traversé dem ba tey. demoon Dakar ñu wécc Dakar bi doori jàng. pour gëstu